wa bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifati alcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wasaxil lana abwaaba fadlika wansur calayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal caalamiin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 di weeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam di bis bim ñëwoon àdduna ñoo ngi ciy ndokkeel jullit yépp ñi ne ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew fépp fu waay nekk rek tey taalibe bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi lay ndokkeel ci bisam bii moom mi nga xam ne teraangay àdduna yàlla nga ko jaarale ci moom ndax teraangay àdduna mooy nangul yàlla te moom yàlla da ko yónni mu ñëw doon ndawam loo xam ne dañoo niteel fii ba ñu nite maa ngi doon wax ne gàmm yëpp da daan am solo waaye reen bu fekkonte ne gàmm amut période bi période gàmm lay doon noonu la yàlla moo ñu àdduna naturellement ndax attaques yi nga xam ne moom lañ jëmale ci jëmmam ju tedd ji sallallahu alayhi wa sallam daa yóbbe yëpp aji xelu yóbbe yëpp aji nite mu war a xooliwaat sallallahu alayhi wa sallam waaye mu jaral ko dara ndax bi ñu ko yonent bi bi ko borom bi subhanahu wa taala di pré di présenté di ñu xamale ak moom di ñu wax wàccuwaay bi mu am ci ñun daa jëfandikoo ñetti baat muy annabiyu awla bil muminina min anfusihim nee na daal yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën a yey jullit ñi sax ci seen bopp maanaam kenn ku nekk yonent bi moo la gën a foor ci sa bopp xam nga nit ku ne boppam daa foor ci moom waaye yonent yàlla muhammad la yàlla ne moo gën a foor sa bopp ci yow nga xamante ne kon euh, maanaam nit ki day taxaw ci kanam yonent bi ne balaa kenn agsi ci moom day jaar ci man ba noppi ndax bëgg ko bëgg qul in kaana abaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiratukum wa am wa amwaalun wa tijaratun taxshawna kasaadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihaadin fi sabili fa tarabbasu xataa yatiya allahu bi amri wallahu laa yahdi xawma alfaasiqin borom bi nee na yonent bi moo leen war a gënal ñooñu moo leen war a gënal seen baay moo ñu war a gënal suñu ndey moo ñu war a gënal suñu doom moo ñu war a gënal suñu mbokk moo ñu war a gënal suñu njaboot moo ñu war a gënal suñu alal moo ñu war a gënal commerce mi moo ñu war a gënal kër yi lépp loo xamante ne ñi ngi koy daw di ci jëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo supéer yi moo féete loolu kaw ci ñun kon bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu war la jamono bu àggee ci ñu di koy jéem a ayibal day tax jullit yi gën koo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen ak ngëmam du wér lu dul ne dama koo gënal ay juróom dama ko gënal boppam gënal ko nit ñëpp gënal ko nit ñëpp laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmain nga mu kenn ci yéen du wér lu dul ne dama ko gënal ay woy juróom gënal koy doomam dama ko gënal ñi ko jur gënal ko ñim jur gënal ko nit ñëpp gënal ko nit ñëpp am na beneen xadis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa giñ walladi nafsi biyadihi laa yuminu ahadukum laa yuminu ahadukum xataa xataa akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wannaasi ajmain allahu akbar abdullah ibnu hisaam nee na kunna maa annabii sallallahu alayhi wa sallam wa huwa aaxisun bi yadi omar ibnu xataab nee na ñi ngi àndoon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu jàpp ci loxob seydina omar ibnu xataab radiallahu anhu daal koy wax omar omar omar wuyu omar ne ko yaa rasulallah yaa ma gënal ñëpp ba mu des sama bopp maanaam yonent bi nee na balaa kenn ak ma a mat dama koy gënal ñëpp ba ci boppam omar ne ko ñëpp mu mbirantewu mu ko kaw suuf yaa ma ci gënal la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ba mu des sama bopp yonente bi alayhi salaam ne ko déedéet walladi nafsi bi yadihi xatta akuna ahabba ilayka min nafsika gëm yàlla gi du mat muk lu dul ne dama laa gënal sa bopp lu dul ne dama laa gënal sa bopp ndeysaan Omar settantal mbaaxu yonent bi ak taxawaayam yonent bi gënal ko boppam ca saasa mu yëg maqaama moom wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko maa ngi wàcc yàlla ne sama bopp sax yaa ma ko gënal waxuma keneen alayhi salaatu wasalaam ne ko al aana yaa omar ngëm yàlla gi mat na mbokk yi bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu war la nañ ko jànge ci gàmmu daa bokk ci liy tàqale julit ak kudub julit daa bokk ci liy tàqale kiy dëggal ak ki nga xamante ne mooy naafiq yi ndax naafiq mën naa mel ne ku topp yonent bi ci kaw waaye gëmu ko bëgg ko jullit nag da koy topp waaye da koy bëgg da koy bëgg loolu ay jeexital yu baree baree bari lay def ci nit walladina tabawwa'u daara wal imaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma utu wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasasa bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nee na bu ngeen ma bëggee topp leen ko dee da ngeen bëgg te bëgg ma bëgg leen bëgg leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam topp ko te roy ko bu ngeen ko bëggee ñëw ci bu ngeen ko bëggee rek làq sama ngërëm al iqtidaau bi wa istimaalu sunnatihi wa ittibaa aqwaalahu wa afaalahu bimtisaali awaamiri wa tinaabi nawaahi nga xamante ne da koy bëgg da nga koy roy da nga koy topp topp ay waxam topp ay jëfam jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem am ab yar ci kanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jamono ju neex jamono ju naqari bu ko defee borom bi subhaanahu wa taala ne ma daal di lay gërëm tàpp-tàppal la teg la ca kaw qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkumullah yàlla nee na bu ngeen bëggee ma bëgg leen bëgg leen yonent bi te topp ku ko topp ma bëgg la wa in tuti'uuhu du bu ko defee bëgg googu ci bis yu mel nii liñ ciy jànge da cay bokk jikkoowoo jikkoom ya jàng jikkoom yu tedd ya taxalluqu bi axlaaqihil karima jikkoom yu tedd yu laab yu sell ci biir yu sell ci eh, bitti ndeysaan ni nga xam ne noonu la ko anas ibnu malik radiallahu anhu waxe ne yaa in xadarta ala an tumsiya wa tusbixa layla fi qalbika qissun li ahadin fafal summa qaala lii wa dalika min sunnati wa man axyaa sunnati faqad axabbani wa man axabbani kaana maci fil janna sallallahu alayhi wa sallam kon bëgg ko sopp ko sopp ko bëgg ko ci xol ak di ko yëg ndax képp ku bëgg nit da ngay da ngay bëgg a dajeeg moom waaw lu waay bëgg da koy bëgg a gis lu waay bëgg bëgg day bëgg a nekk day bëgg a nekk ak moom moo tax shawq gi ngay am ci dajeeg yonente bi alayhi salaatu wasalaam bëgg gi nga xam ne moom nga koy bëgg muy dundal sa xol loolu euh, mooy li nga xamante ne moom la ab jullit war a yëg moo tax xoli jullit yi nga xam ne dañuy dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamono yi jamono yu metti ci ñoom la ndax sang boobu nga xamante ne weñ wuruta ci kawam maa ngi wax ne pitax yi sax xam nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ba jox ko wàccuwaay nit moom dëgër bopp euh, sàggan lool am xamadi ba mën a jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko ñàkkee ma keroog ba muy gàddaay di jóge màkka jëm madina yéefar ya topp ko mu dugg ca xunti ma jargoñ ya dañ ne ñun dañuy participer jargoñ jargoñ yi jargoñ yi sax xam nañ ko yonent yàlla muhammad ndeysaan moom la ko seex saadi bu seexu naa seex saadi bu waxoon way xa qawmin jafu nabiyahum bi ardin waaw alibatu dibaabu haawa sababu nee na ko ah, man eh, yërëm naa nit ña nga xam ne nit ñi nga xam ne dañ la réere yow yonent bi di la bundu xatal ba nga génn ca ñoom jargoñ yi ak pitax yi sax xam nañ yaay kan waaw yi ak pitax yi sax xam nañ kuy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam keroog ñoom ñoo ñëw jargoñ lënd pitax tàgg nen ñu ne ñun lii ñoo ko ñoo ko nëbbe suñu suñu xob yi li muy tuuti tuuti saa nen li muy néew néew doole maa ko teg ci kawam ndax bañ bët yi noon tegu ci kawam pitax yi sax xam nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak jargo yi ku ko réere safu ko sallallahu alayhi wa sallam yàlla buñ bokk ci ñi nga xam ne dañ koy réere nañ ko bëgg te di ko dund te di ko yëg nañ ko bëgg di ko dund di ko yëg waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii ngay gis mu fi weex lépp ak a leer di nuru mbaax hmm, ku fi taal ba mu tàkk rek yaa ngi jafale ci taalub yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw taal boobee ca la seex abdul qadir jeylaani jafale taalu yonent boobee ca la seexuna eh, eh, Seex Ahmad Tidiane eh, radiallahu anhu jafale taal boobu ca mag ñaaña ak mag ñi ñëpp jafale moo tax ku tàng potum ndox jëm ca taal ba nga fas sey loxo toog di ko xool yëgooli xew yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñee na koo xamante ne danga bëgg yonent bi da ngaa bëgg yàlla akub yonentam ba nga xamante ne ñoo la gënal leneen lu dul moom kooku am na cafka ngëm yàlla am na am na cafka ngëm yàlla te ku ne nga bëgg nag kooka ngay àndal ku ne ka bëgg rek ngay àndal waaw man ahabbani kaana maxi fil janna yonent bi nee na képp koo xam ne daf ma bëgg maag way bokk nekk aljanna sallallahu alayhi wa sallam waaw ñoo ngi lay bëgge ñoo ngi lay bëgge di mere képp koo xamante ne xalaat na ci yow xalaat bu ñaaw waxumaag mu la koy melalal waxumaag mu koy encouragé ak lu mu ko mën a tuddee buy nuru nuru lu nit it ab dof la waaw buy nuru lu nuru lu nit ab dof la buy woote daraja it bu suufe la ndax suufe dëgg mooy jéem a suufeel yonent yàlla muhammad ndax da ngay suufe te du tee mu jëm kaw daa am ñu ko bañoon di ko jabolise naan ko da ngaa dof am ñu ko doon jabolise naan ko woykat nga taaxuraan kat am ñu ko doon jabolise naan ko ab am mm, njabarkat nga am ñu ko doon jabolise naan ko waxkatu lu du dëgg nga ñooñu ñëpp seeni bàmmeel raaf na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa woo wooteem bi di gën a yokku di mam mu jëm ci kaw noonu yàlla yi te kenn mënu ci dara waaw yuriduuna li yutfiu nuurallahi bi afwaayihim yàlla nee na sama taal bi ma taal ba muy takk da ngeen koo bëgg a fayee seen gimiñ yi tuuti ngeen ci waaw taal bu yàlla taal ba muy tàkk nga bëgg koo fayee sa gimiñ bëgg a ëf ba mu fay yàlla nee na mënu leen ko wa yàballah yàlla ma bañ taal bi du fay day tàkk illa an yutimma nuura waaw day takk day tàkk lor leer gi day mat mi ngi ñëw ci seen kaw Europe leer gaa ngi ñëw waaw leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dugg France dugg àdduna bi yépp te dafay sax te day gën a yokku da di fekk ci seen biir pale yi fekk leen ci biir seen li ngeen tudde luxe fekk leen ci seen biir réer tege ngëlamte gi képp ku ko nangu sa teraanga yokk ba faw ku ko desal ginnaaw même boo jiitee réew mu man di doon fa ngay jaare di gën torox jëm suuf ba ilaa yawmi diin sallallahu alayhi wa sallam kooku moo yonent yàlla muhammad nee na nit ku nekk nga bëgg ngay àndal kon ñun nañ ko jéem a bëgg moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax nee na ku ma bëgg maag yoway bokk euh, dëkk aljanna ñooy bokk dëkk aljanna suñ borom subhaanahu wa taala waajale ko lépp loo xam ne day tax nit ñi bëgg ko ci jëmm ju rafet waajale ko jikko yu rafet waajale ko jikko yu rafet ndeysaan nee na maa baasa allahu nabiyan illaa xasana al wajhi xasana sawti wa kaana nabiyukum axsanuhum wajhan wa axsanuhum sawtan allahu akbar nee na yàlla yonent bu ma sa yónni sa daa rafet sa kàddu dafa neex sa sa jëmmu daa rafet sa kàddu dafa neex c'est-à-dire li ma bëgg wax foofu mooy doo doon nit ko violent waaw yàlla du yónni koo xam ne dafa agressif ku ñàng yonent yàlla muhammad ñàngut waaw ku nooy la woon ku nooy ku yaru la woon ku yaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku lewet la woon ku bañoon ak tooñ la mësta tooñ gor mësta tooñub jaam mësta tooñ ku am mësta tooñ ku ñàkk mësta tooñ ku am eh, eh, maanaam ku bari le mësta tooñ ku néew doole sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala xuluqin azim la ko yàlla wax nga xam ne masalul ala fi makarimil axlaaq moy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy exemple bi gën a rëy ci àdduna waaw waaw moo gën a rëy ci àdduna moo tax ki doon xool nit téeméeri nit ñi gën a rëy ci àdduna du ab jullit waaye nee na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy numéro un mooy numéro un mooy nit ki nga xamante ne moo gën a moo féete kaw ci àdduna lépp lu man di doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo la féete kaw mooy mooy ki gën a kawe ci mbindeefi yàlla yi subhanahu wa taala wa innaka la ala xuluqin azim loolu la ko yàlla wax nee na ko jikko moom yaa ci misaal mu réy mi waaw yaa ci misaal mu réy mi ak fi mu jaar ak moom ak fi mu ko tànne ak dayo bi mu ko jox li lay woon ne dañ koo bëgg dañ koo war a bëgg moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam saa borom subhaanahu wa taala moo ko njëkk a bëgg yàlla na man maa ko njëkk a bëgg bàyyi ko xel nag bàyyi ko xel ba noppi digal leen ngeen bàyyi ko xel ndax moom mooy sangub doomi aadama yi waaw li wàcc ci kaw suuf yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ci gën yàlla tànnal ko askan wu sell yónni ko seekal bi mu doon dund seekal boobu moo gën seekal boobu moo gën dundale ko barke dundale ko barke mu feeñe àdduna ca baytilaayil xaraam ñu tànnal ko tur yi nga xam ne moo gën a rafet tur yi nga xam ne moo gën a rafet nu mu tudd moom muhammad mooy ahmad ku ñu sant ki baayam nu mu tudd abdallah mooy jaamub yàlla bi yaayam nu tudd Amina ki ko nàmpal nu mu tudd Halima ki ko ki ki ko yar nu mu tudd Ummu Ayman e, e, ak kan Baraka nga xamante ni ñi ko ñi mu ferokante ci maanaam ci endroit am rek moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëpp ay tànneef lañ ñëpp ay ñëpp rek ay tànneef lañ sallallahu alayhi wa sallam suñ borom ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabiyi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla nee na man duma ma sëlmal du ma dañ mukk maag sama malaaka yi ne fii di bàyyi xel seen kii allahu akbar yàlla nee na ko yow yonent yàlla muhammad Macron yaag ñi mel na yow ak ñi jàpp ne affaire bi liberté la dañoo war a teey affaire yi jërul xët def leen ndànk rek yàlla nee na yéen ñooñu di jéem a tuutal yonent yàlla muhammad man yàlla maa ngi julli ci moom bàyyi naa ko xel malaaka yi itam bàyyi naa bàyyi nañ ko xel ñi am jom ci kaw suuf te doon nit ñu nite it bàyyi nañ ko xel wasallimu taslima sallallahu alayhi wa sallam borom bi ne ko nag na sa xel dal na sa xel dal inna fataxnaa lakka fatxan mubiina maa la ubbil àdduna maa la ubbil àdduna àdduna bépp ubbeeku ci yow inchaa allahu taala balaa yàgg da nga dégg mbooloo yu bari yu dugg ci diine ndax danañ xooli lii àdduna di coow lan la te diine moom ko xool bokk ku xool te rek gis lu la convaincre li yaxfira laka allahu maa taqaddama min zanbika wa maa taaqara waaye nag wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka allahu nasran asisa xoola loolu inna fataxnaa lakka mu yow muhammad li yaxfira lakka maa taxaddama min zanbika wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka wa yansuraka sallallahu alayhi wa sallam lii lépp yàllaa ko defal doora ñëw nag ca e, lam ko jox nga xamante ne loo ko xañati safu ko ne ko inna aataynaaka al kawsara waaw man yàlla maa la jox maa la jox maanaam lu doy sëkk maa la dox maa la jox lu doy sëkk ci xam ci xàmmee ci ay ngëneel misaala ñu ko ne ñu boroomi ngëneel la wa anzala allahu alayka alkitaaba yàlla nee na ko yow yonent yàlla muhammad maa la jox téere bi muy alquran wal xikma ma jox la philosophie bu mat sëkk aku xammee aku ràññee wa allamaka ma lam takun taalam waaye loolu yëpp nag li ko laytaay mooy wa kaana fadlullahi alayka azima akbar allahu bi door koo dig nag ne ko lii ma wax nii yëpp dama la koo wax waaye li ma la digg ko ëpp wala sawfa yuctiika rabbuka fa tarda danaa la jox di la jox ëllëg yowmal xiyaam di la jox ëllëg yowmal xiyaam ba nga ne doyal na yonent yàlla Muhammad ñëpp a ko bëgg moroomi yonentam yi nga xam ne ñoom bu doon am ay nawle ñooy doon ñooy doon ay nawleem te mu supérieur leen yàlla da leen a laaj fasante ñoom kóllëre ñi ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñëwee dañ koy gëm dañ koy jàppale dañ koy dimbali dañuy ànd ak moom bu ñëwoon fekk ñu jamono nii la ñuy taxawee moom nga xam ne ñoom ñooñu nga xam ne fekkuñ fi yonent bi yonent bi fekku leen fi ñoom ñooñu sal alayhimu salaatu wasalaam dañoo nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa id aqasa allahu misaaqa nabiyina lama aataytukum min kitaabin wa xikmatin summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuminunna bi wala tanzuranna qaal a aqrartum wa aqastum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashadu wa ana maakum min ashaahidin allahu akbar yonent yëpp ko nangul yonent yëpp xoolal bi yàlla di lim yonent yi yonent yàlla muhammad la jiital ndax daraja ji nga xamante ne moom la am ci kanamam wa is axasa allahu wa is axas naa ndeysaan min annabiyiina waaye min ka yow muhammad yàlla sax du tudd tur wi mu mu mu féete boor yóbbaale ñëpp géew wa min nuuxin wa ibrahima wa muusa wa isa bnu maryam allahu akbar wa isa bnu maryam moo tax net li nañ ni Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu anhu bi ji wàccee dafa jooy dafa jooy dafa jooy bi abi wa ummi ya rasulallah laqad balaxa min fadilatika inda allahi an baasaka axirul anbiya wa zikruka fi awalihim yonent bi alayhi salaatu wasalaam teraanga yooyu ko yàlla defal mooy yonent bi mujj yónni waaye fu muy limee yonent yi lay jiital min ka yonent yàlla muhammad wa min nuuhin wa ibrahima wa muusa wa isa bnu maryam allahu akbar qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkum allah yàlla nee na bu ngeen bëggee ma bëgg leen bëgg leen yonent yàlla muhammad te topp ko waaw leen ko te topp ko ku ko topp ci man wa atiu allaha wa atiu rasul nga xam ne daa jël ak topp ko moom yàlla taqale ko ak topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam man yutii rasula faqad ataa allah yàlla ne na ku topp yonent bi man nga topp xoolal bii garanti bu rëy moom ci boppam la yàlla ne ku ko topp man nga topp wa atiu llaha wa atiu wala war rasula waaw topp leen yàlla ta topp ma <laughs> laallakum turhamun tilka ududullahi wa man yuti illaha wa rasulahu yudxilhu jannatin tajri min tahti al anhaaru ba aaya ja jeex waaye wa man yuti illaha wa rasulahu mbokk yi gàmmu dañ ciy jàng dundug yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye dañ koy bëgg dañ koy bëgg suñ borom subhaanahu wa taala noonu la ko def moom noonu la ko def noonu la ko def nañ ko def ni mu ko def nam nañ ko def ni mu ko def innama jazaahu alladina yuxaaribuuna allaha wa rasula toroxtaange dong la yàlla nee na xam ne dañuy xeex yàlla akub yonentam ndekete xeex yàlla xeex yonent bi mooy xeex yàlla fa in lam tafalu fa adanu bi xarbin min allahi wa rasuli yàlla sax ku muy déclarer guerre danaan la manki sa kaw maag yonent bi kon ku song yonent bi saa boroom nga songu zalika bi annahum shaaqu allaha wa rasula wa man yushaqiqi allaha wa rasula fa inna allaha shadidul iqab sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar yàlla nañ ko mën a dund yàlla nañ ko gàmm ci jàmm def ko muy gàmm gu fàttalikoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jàngu dundam gi def ko muy gàmm goo xam ne dañuy dund dundam gi dund ko ci ay ñaan dund ko ci julli ci moom jeexal lépp ci ak topp yàlla ndax loolu mooy njariñ yi jeexal lépp ci ak topp yàlla foo ko mën a defee baax na waaye mbégte mi ngay àndal moo ci am solo ab jullit day bég ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam rik waaye tàggatal sa xol bi ba mu nangoo yonent bi mu doon sa xarit waaw tàggat ko ba mu nangu mu doon sa xarit boo amee aw ñam joxeel te yàlla tax ngir jëmmi yonent yàlla muhammad boo wéetee toog na ngay julli ci moom julli goo julli baax na waaye del julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye del jàng dundam gi del jàng dundam gi di ko nafar jotaay boo xam ne boo fa demee ñu waxtaane yonent bi ci anam gu tegu ci yoon nga man caa jànge dara na nga dem ñu wax la ko mu gën a yokk sa cofeel ci moom waaye gën laa yokk nga man koo roy gën laa yokk nga man koo dund loolu am na solo loolu am na solo ku ko yàlla man rek deseelatu la dara allahu akbar ku ko yàlla man rek deseelatu la dara yàlla ñu yàlla may ñu man ko ñoo ngi ndokkeel bu baax a baax kilifa yi jiite yëf yi ba tax réew mépp bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam woote gàmmu yi suñu xel jóg Tiwaawoon bu gàmmu ñëwee woote gàmmu yi ca Kawlax waa kër maam alaaji Abdoulaye yëpp moo xam ña ca Léona la moo xam ña ca Medina Baay waa kër Cheikh al Islam Aji Ibrahima Ñas di seet di bu baax xalifa ba sëñ maax yi naka noonu Euh, boo demee Jurbel ci mboolem quartier ya nga xam ne dañuy gàmm ndax noonu la ko Sëriñ Tuubaa daan dundale tahsimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati nee na képp koo xam ne bisu gàmm sax joxe nga ci benn tibu ñam mel nga ne ku fekke badar ndax bëgg gum bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak bëgg koy dunde noonu allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi laalamina innaka xamidun majid assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu